Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf waxi waxtaan yu président Macky Sall woote moom la yéene kaay xëy ñu dem ci l'observateur mi xëy dem ci Ousmane Sonko mi ne du dem ca dialogue ba ubbil bi gi mu bañ lànk kandaar ne ba journal bi gis ne wéet na ca lool Sonko seul contre tous ndax ci biir leader yu yeewi askan yi am na ñu ne dañu cey dem bokk ci ñoom Khalifa Ababacar Sall naka noonu it waa parti démocratique Sénégal Alassane Ndaw dib enseignant chercheur bu nekk ci université Gaston Berger bu Ndar di xamal waa l'observateur bi Ousmane Sonko la mu jógi moom professeur bi ba wax ko mi ngi koy leeral ci biir l'observateur l'observateur wëlbati ko jox kàddu gi Babacar John ab journaliste buy gëstoo ko xeltu ci politique réew mi li mu gis mooy bokkul ci a dëggal taxawaayu opposant problème la waaye ak lu mu ci mën di doon moom li mu jàpp moo di ak ñàkk bokkam ci dialogue bi Macky du ko yëgal yaramam lëkkut jene ñu dialogue boobee Macky Sall woote féewale na xaat kàngam yi séq coalition yeewi askan wi conflit d'intérêt am na Sonko ndax Khalifa dem ci dialogue bi mooy li ko arrangé te loolee fekku ci Sonko moo tax la seen kay mel ne ku gis ne alliance Ousmane Sonko ak Khalifa Sall bu doon aw ñam la ñu ne date bi mu war a yegsi na ci dialogue bi ca la waroo journal Tribune mi gis ne dialogue bi ab dil ba tuddee ko dialogue dil dolli na ci di laaj kan ci diggante Macky Sall ak waa Wàddeen la dialogue bi ëppër njariñ kilifa politique beneen bu loxo bi Macky Sall tàllal joo xam ne àq ak yellee fi association nationale gi ëmb ndaw yi jàppal tànk Bougane Gueye di gëm sa bopp dàq nañu dialogue bi ba dàqale bépp xeetu dil bu ñu mën teg ci ndoddal askan wi waa parti démocratique Sénégal enquête dina kay ne nañu tontu nañu Aminata Touré mi leen di tuumal ne dañuy baara yéegoo ak Macky nee nañu it dialogue bi président Macky woote ñoom danañ ca dem waaye nag ci kawi condition teg nañu seeni condition bi ci njëkk mooy révision procès bu Karim Wade mën ko waxtaane ca dialogue ba ba mu des mbiri deuxième quinquennat bu président Macky bi waa COJER nee nañu loolee mënul bokk ci li waxtaane ndax yoon réglé na ko ba pare ñoom ndawi COJER it le témoigné nee nañu rafetlu nañu it taxawaay républicain bi waa Parti démocratique Sénégal ak waa taxawu Sénégal taxawee ci woote waxtaan gi président Macky Sall woote Ousmane Sonko jalgati na contrôle judiciaire bi ko justice defoon journal L'Info moo ko bi Sénégal bi ba nañu ci weeru démb bu mujj bi gis nañu mbooloo mu takku ci commission yi demoon fa doon bindu bi ñu tàmbalee inscription yi ba nit ñu ko tëjee démb ëpp ñetti téeméeri junniy doomi aadama jot nañoo bindu ci liste yi ci réew mi lu mat fanweeri junni di bindu nañu ci diaspora bi vox populi nañu li am démb ca sous préfecture bu daam ca Touba du jàmm ay primo ñoo fa doon wane seen maire ba caxat-caxatee sous préfecture ba yàq nañu fa ñetti bureau tojote fa ay wiitar li andi coow li bi nee na moo di dañoo demoon bëgg a bindu ñu ne leen tëj nañu ko loolee moo leen merloo ñi doon tojoka caxat-caxatee sous préfecture bu ndàmb Vox Populi nee nañu am na kenn ci ñoom ku ñu ca teg loxo seen agent